sëñ bi Diouf Ousmane euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay delloo nuyu di nuyu. auditeur Rewmi mhm, di fàttali auditeurs yooyu lee ni moom mooy ñaareelu adjoint au maire bu Kër Massar bokk tamit ci commission décentralisation e territorialisation politique publique atu euh, 2019 bokk tamit ci comité suivi audit fichier électoral ak évaluation présidentielle bu atu 2019 toujours tey ñu waxtaanee départementalisation Kër Massar diggee dañ ko diggee woon tey ñu jëfee ko euh, nan nga ko jàngatee. waaw d'abord. Euh, sant ànd ak euh, waa Kër Massar sant hmm. comme mbir mi moom mbiru càkku teef la woon hmm. te ba koy sàkku population bi moo ko sàkku woon ñun ñu porté mandat ay population rek kon population yooyu bu ñu béggee ci loo xam ne sàkku woon nañ ko ñu jox leen ko hmm. mu mënuñu ànd lu mooy béglee leen Mhm. Euh, mu mel ni euh, tey am na ay enjeux yu bëri yi nga xam ne dina tegu gannaaw boobu boobule lan mooy soppeeku lan la Kër Massar euh, di gagné ci changement bi. waaw xam nga yaakaar moom dafa fort parce que kaw yaakaar nit dafay lal li nga xam ne moom mooy yi mu bëgg. Mhm. ñu yaakaar nag ne Kër Massar ak département bi dana war a yokku ci anam boo xam ne li ñuy woowee planification du développement euh, danañ ci gën a mën a déggoo et déggoo boobu également daal di ñu yóbbu ci ñu mën euh, jëmmal lenn loo xam ne dina gën a may Kër Massar ak dal mais dina gën a jox xar kanam hmm. Kër Massar boo xam ne dina tax ñu bëri naw ko daal ci tund wi mais naw ko ci biir réew mi ndax Kër Massar am na ressources yi nga xam ne dina ko may moo wëyal euh, bile projet. waa xam nga ressource euh, comme ni ñu koy waxee rek dafa doon mbir moo xam ne dafa am ci yi muy tegu mm-hmm. ci yi muy tegu aussi euh, activité doomu aadama def ci bokk mm-hmm. doomu aadama yooyu yàlla dogal na nag ne Kër Massar te yàlla mu ngi màgg ak yi màgg goo xam ne du yéeme la màgg googu muy màgg ci anam bu yéene aussi. Mhm. am na li tubaab di woowee ab dynamisme économique boo xam ne mu ngi fiy màgg. waaw te am nañ également ci wàllu ndaw loo xam ne concentration la forte concentration euh, de jeunes yoo xam ne jeunes yooyu aussi am na ak xereñ am na jaar-jaar ci wàllu jàng. koo mhm. xam ne am nañ ko. loolu nag boo ko boolee ak euh, nga xam ne moom mooy euh, yi ñuy woowee ay infrastructure mu jëm ci wàllu ay commerce mm-hmm. jëm ci wàllu ay marché jëm ci wàllu ay école également yoo xam ne euh, ñu ngi gën di bëri ci biir Kër Massar di gën di tabaxaat ndaw yooyu ci wàllu li ñuy woowee ab euh, xereñ mm-hmm. yooyu yëpp mbir la yoo xam ne bu àndee ak ay politique yoo xam ne c'est des politiques intelligentes mm-hmm. dans une inclusion maanaam boole nit ñi ci biir mbir yi yooyu yëpp mën naa tax bañ am yaakaar ne danañ gisaat beneen xar kanamu kër kër Massar. Hmm. sànq waxuñu ko lan mooy euh, soppeeku ci wàllum gouvernance locale ndax ba euh, ñuy xool sànq am benn euh, information bi nga xam ne Walf joxe na ko ne dina am délégation spéciale ci jëm liy changé foofu. waaw xam naa ci wàllu woowu. ñun ñëpp seetloo euh, ndoo nañ ñu Kër Massar ci at yi mhm. bëri na coow mhm. bëri xëccoo waaye am na leen loo xam ne quand même boo duggee ci ndaw ñi boo duggee ci jigéen ñi boo duggee ci li ëpp ci Kër Massar mhm. nit ñi liñ lay wax moom mooy xamuñu tinuñu yëguñu ñenn ñi sax pour tooñ dañ lay wax ne la Kër Massar ndax am na maire ñun de xamuñ ne Kër Massar am na maire donc loolu li muy tekki moom mooy euh, loolu nga xam ne moom la ñuy wooyee ak participation loolu ñuy wooyee inclusion ndesoon na wax dëgg yàlla ci at yi ba tax na euh, loolu jàpp nañ ne ak li nga xam ne moom mooy ñëw yi suñu ko joyante mhm. muy corriger dana am lu bëri loo xam ne dina ko jëral Kër Massar ci njëriñ mhm. a ah, beneen bi nag Euh, mooy comme membre la du bureau euh, du conseil municipal de la ville de Pikine hmm. démb waxtaani nañ ko ak ki nga xam ne moom mooy préfet hmm. ndax am na ay conseillers ba ci ay maire yu ko laaj ne ko euh, découpage bi ñu def nii suñu noppee ci waxtaan yi nga xam ne moom lañuy waxtaan hmm. ba autorité bi jël li muy jël ci ay dogal lan lay jeexital ci nekkinu mairie mais à cet effet préfet li ñu wax moom mooy d' abord découpage bi dina mën a dem bu nekkee yoon ñu mën daal di ne gox yu bees yi ñu ngi nii léegi nag ci kaw loolu euh, mbir mi li code général des collectivités territoriales wax moom mm. mooy gox yooyu il faut ñu taxaw ba noppi ñu mën daal di ne ay gox yu jëmm lu ñu ngi noonu te loolu mënul am lu may gannaaw ay élection mhm. mais nag toutefois autorité bi muy en l'occurrence le président de la république su ko neexee mën na jël benn décret waaw boo xam ne day jàpp ne décret boobu dina andi mu daal di dissoudre yi en tant que ay collectivité territoriale mhm. bu boobaa nag bu ko jëlee ci la effectivité délégation spéciale mën a nekk

waaw am na hmm. fukk ñett ñoo xam ne nee nañ ànduñu am na hmm. ñeent ñoo xam ne ñoom dañ ne dañ ciy maandu. te ñoom euh, ñi ñëwee kër bu ñëwee kër Massar. parce que hmm. dañ pare liñ depuis fi ñu di wàcc ci kër Massar. biñ ñëwee ci conseil municipal kër Massar ci ñeent fukk ak juróom-benn yi kenn moom moo taxaw ne moom àndul ci li nga xam ne moom mooy départementalisation kër Massar bi et moom dafa jël rek mbiram. lay ko ci ne xaaj bi nga xam ne moom lañ bëgg a xaaj daal di pàcc Kër Massar mhm. cosaanu dëkk bi ci biir pàcc boobu noonu am lenn lu féete ci penku am leneen lu féete ci sowu même bu fekkee administrativement la moom rafetlu wu ko mhm. loolu moom moo tax mu taxaw ne moom àndu ci andu ci xalaatam mel ni dafa fekk bu waa Bambilor ndax ñoom it nee nañu pàcc pàcc googule ñoom dafa am lu mu leen yàqal ba tax na sax ñoo ngi ciy laam-laame ne politique la euh, tey jii noo jàngatee euh, seen taxawaay. waa Bambilor moom xam nga dañoo am seen réalité. Mhm. waaw ndax euh, Bambilor ka nga xam ne moom mooy ka fa nekk maire mu di Ndiaye Diop. Mhm. ak ka nekk Sangalkam. di ministre des collectivités territoriales euh, ki nga xam ne moom mooy Omar bi ñoom euh, mën nga ne mag la ak rakkam ci wàllu politique yàgg nañ ànd mais loolu yàgg nañoo gis également ni ci biir politique da ngay ànd ak nit mu nekk sa sa comme ni ko tubaab di woowee mentor ngeen dem ba mu yàgg ay ambition daal di taxaw ci seen kanam hmm. ci biir taxaw ci kanam boobu comme politique dafa baaxoo bëri léeg-léeg yooyu dina andi ay mbir yoo xam ne ay lecture politique daf ci am donc Bambilor dañoo am seen réalité boo xam ne. Hmm. wuute na ak bu Kër Massa. et donc euh, ci biir loolu également ñoom bu fekkee dañ leen di pàcc génneel leen ay dëkk yoo xam ne ay dëkk cosaan la yuñ jàpp ne lii amoon na jeexital. Hmm. ci wàllu wi nga xam ne moom mooy wàllu économie mais amoon na ay jeexital ci wàllu poids électoral. Hmm. automatiquement lecture politique bi day doon benn lecture boo xam ne bu objective la mhm. du rek Bambilor ñoom dañ cee gën a fës waaye am na yenn diwaan yi nga xam ne dégg nañ leen tamit ci week bi ñu ci mel ni Jaxaay ak euh, yeneen euh, diwaan nekk foofu ci euh, Kër Massar ndax yow mii nga xam ne bokk nga wala mës nga bokk ci commission décentralisation ak territorialisation politique publique jàpp nga ne projet bi bu dee daad nañ ko rejeté ci yenn diwaan yi dinañ ko daal di nag adopté conformément à disposition code général des collectivités territoriales waaw ci biir euh, commission de centralisation bu dialogue national bi mais malheureusement dialogue national boobu jeexewul ñi nga xam ne noonu lañ ko bëgge woon yaakaare ko ko mm-hmm. taxawoon nañ di am lenn loo xam ne euh, gaaraloon nañ ko mm-hmm. ci objectif spécifique yi yi nga xam ne waroon naa naal suñu liggéey ci biir loolu neewoon nañ Euh, dinañ produire lenn loo xam ne ci jàngat dinañ ko woowee la carte des des incohérences territoriales hmm. ndax diggante acte un bi acte deux bi ba bi ñuy dugg acte trois bi comme ni nga ko waxee sànq rek dafay hmm. am ay découpage yoo xam ne hmm. léeg-léeg yi fii jaar nekkoon au pouvoir daan nañ am problème ci ni ñu téye seeni ba yooyu daan na waral ay rëj-rëj yoo xam ne léeg-léeg daana am ay découpage yoo xam ne doo mën a comprendre lii lan la hmm. doo comprendre lii lan la li nga ciy yëg rek moom mooy gérer ah, seeni responsable politique yoo xam ne ay kàngam lañ yuy diirante mbagg ñuy tegante dënn yooyu également daana andi léeg-léeg tukku ah, ñu jox ko ay dikk yoo xam ne dina dugg ci dëkk bi génn ci dëkk bële ba doo mën a comprendre lii ci ab découpage boo xam ne bu war a jaar yoon la lan la loolu convoqué woon nañ ko ci biir cadre boobu daal di ne yu ñu war a joyantiwaat la mhm. waaye nag wax dëgg yàlla euh, comme ñun pare wuñu woon mbir moom te fii càkkuteefu Kër Massar rek la woon ñu dégg président de la république wax ci mhm. ne Kër Massar dinaa leen def département man de euh, njort moo woon ne dana am euh, li nga xam ne moom mooy lawtan ji mu def nii ba ñuy wax aujourd'hui redécoupage euh, territorial bu région de Dakar mhm. ñun ñoo ngi woon rek ci schéma bi nga xam ne moom mooy suñu schéma euh, bi suñu requête ñu càkkutéef mhm. Kër Massar joxe woon mhm. mës nga bokk tamit euh, ci comité suivi audit euh, fichier électoral ak évaluation présidentielle atu 2019 tey euh, wala sax bu yàggul mu am benn conclusion ay expert ci lii di fichier bi ñu wax ne dafa fiable li opposition bi lank ko ne du ca dal yow lan nga xalaat ci justement boobule mbir waaw li ma bëgg a wax foofu rek moom mooy en tout cas amul lenn loo xam ne ci wàllu ñoom seen doxali doxalinu liggéey muy méthodologie ak calendrier bi nga xam ne moom lañu fixé woon amul ci lenn loo xam ne lëndëm na ci bëtu opposition bi parce que ñoom bi ñëwee le 17 février avant yónnee nañ ñu par email à travers le comité de suivi li nga xam ne moom mooy seen agenda. Mhm. ñu toog après. discuter ko ci ñaari eh, toogaay fixer agenda bi méthodologie bi liñ ci amoon ñun ci loo xam ne dañ ne lii bëgg nañ ñu ko nii ñu d'accord kooku ñun mhm. wàcc ci terrain bi di rencontrer administration yi di rencontrer autorité yi mais jël sax rencontrer i entité yi muy pôle yi nga xam ne ñooy yi fa nekk ñëpp majorité, opposition non alignée, mmh. rencontrer société civile, rencontrer CNRA, Sénat, rencontre yooyu yëpp ci biir cadre déroulé seen liggéey def nañ ko waaye yemuñ ci loolu saa suñu demee ba jël liñ jël yónnee nañ ko par email ñu toog jàngat ko en tant que ay entité dajeek ñoom ñu daal di ñu ko gaaral ñu ne leen lii lii lañ ci xalaat lii ah, dañu bëgg ñu génnee ko ci anam bi dañu bëgg ngeen yokkaat seen jéego ci lii mm-hmm. noonu lañ doxale ba di équipe évaluation bi ñëwee ñu wax problème mu calendrier bi nga xam ne mooy calendrier wu ba euh, opposition bi jël responsabilité ne day suspendre pour le moment li nga xam ne mooy liggéey bi jusque là liggéey bi était un travail clair un travail très méthodologique et restitution après restitution ñu dem ci li nga xam ne moom mooy rapport provisoire bi jébbal leen ko hmm. ñu war cee toog jàngat ko dem ci rapport final tey commission politique bi convoqué nañ ko jëm ci li nga xam ne moom mooy rapport final politique nag mu tëddee ni mu tëddee am nañ peut-être seeni raison mais man li ma mën a témoigner rek moom mooy mbir yi amul lenn lenn lenn loo xam ne ci wàllu méthodologie bi ci wàllu agenda bi lenn loo xam ne am na benn yoon lu écarté kii wala lu écarté kële déedéet processus bi ñoo ko toppandoo. d'accord ba fii toll. d'accord léegi nag ils sont en tant que ab jël li nga xam ne moom mooy seen position. jàngat seeni jàngat mhm. waaye man li ma war moom mooy témoigner d'accord Ousmane Diouf euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf man maa leen di remercier